sangub jigéen ñi ci dunya jaaratullaay ci turam deug di soxna Mariama mam jaara so nek ñettelu soxna bu mam Mor Anta Sali Mbàkke mo ngi gane aduna at 1833 ca Goloré nek ca bët ganar japp penku réew mi soxna jaara ci dundam yep da koo lon jaamu yalla gu mat sekk waaye tamit jàngaleep diine way jur bu jigen bu Cheikh Ahmadou Bamba nek na jigen bu ñuy roy ci turam deug soxna Mariama mam soxna jaar nak xamna roy ko yombul waaye dañuy jéem ndax jigen ñi tey ñi yaaka naa soxna jaar meloon doto gaaw gis ko ni mel. mam jaro busu binu ko mure di yobul mam Mor Anta Sali dafa dafa jeki jékki rek onk mom soxna si ñi mu àndaloon ni ko lu xew mbaa jam la mu ne dama xam ni ben aya alquran ci alquran rek mom lay xalat motax ma onk ñu ne ko ban aya la mu ne yalla nan ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa xaatama yiina baatu wa xaatama yiina moo ub sama bopp bi ñu ne ko luy loolu mu ne yàlla dafa wax ni yonent dootul ñëw gannaaw sayduna muhammad bu dul woon nag wax bi ko yàlla wax ma mën a waat man maam jaaru buso ni fële ma jëm danaa fa jur yonent allahu akbar <laughs> wax naa ne juru fa yonent de waaye jur na fa koo xam ni bu màggalu tuubaa jotee da nga xam ni boroomam compal na ko <laughs> inna lillahi ibadun ida aradu arada ki jàmmaarloo woon ak tubaab bi ba diine taxaw jàkkaarloog moom tubaab bi ne ko maamoom moom ndar mu ne ko moomoo ndar ndax avant ngay juddu ndara ngi fi woon nga juddu fekk fi ndar di nga dee bàyyi fi ndar te du tee borom ndar di ndar tubab bi ne ko kon ku mom ndar mu ne ko kenn rek ko mom qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in khadir seigne tubaa ne na deug deug soufisme moy nit lay don ko xamni day am xam-xam te waxna ni soxna jaara jàng na alquran mokal ko ci fukki atam jàng fiqul islami bi nga xamni moy yéwénal digeenti nit ki ak jaamam kii ak boromam tabaaraka wa taala diggante jaam bi ak boromam. Mbàkke ak Bawol la fekk sëñ Mor Anta Sali ginnaaw bi njakkan la ñëw Ahmadou Binta Kan mi bokk soxna Sali kan ndey ak baay moo fa nekk di waajuru sëñ Mor Anta Sali ginnaaw bi ñu ñëw Xuru bi ñu jógee Xuru Mbàkke nag ci la ñëw Poroxaan kon Poroxaan bu fi yàggu fi ndax ñaari at rek la fi def. mille mille huit cent soixante sept ci la Maba xeex ak Buur Siin ah, bi mu faatoo ci la sëñ Mor Anta Sali toxoo Poroxaan dem Pataar Lat Joor nekk Amadou Yàlla. fii ci poroxaan tey ku fi teg sa tànk xam ne soxna su sell dëkkoon na fi moo ne day li ko indi poroxaan taarix la bu am solo. soxna Jaara li mu liggéey kenn munta mel ne moom mooy ànd ak yar ba mu amoon déggaloon borom këram ba ànd ak ñam doon liggéeya ndool ñu bokk daara moom mu wàcce boppam di leen defal loo xam ne lii tey nun ku na ko santoon ah du ma ne dana am de waaye du yomb. loola moo ko may itam turam bi fa mu yegg ak doomam ji fa mu yegg kon ku koy dem di ko see di ko di di di liggéeyal ci moom di roy ci moom nanga mel na mu meloon doo ko mel nag waaye na nga ànd ak ku bi yar ànd ak yiwe ànd ak tee ànd ak teggi waxi Cheikh Mahamadul Bachir ibnu Xaadimu Rasul ci téeréem bi nga xam ne mooy minanul baaqil xadim dañu cee portaleel ay aslëf ci soxna jaar mu wax ne kaanat sayyidatuna maryama jaratullah salihatan hafifatan diiniya mustaslimatan li rabbiha qaimatin bi waajibaati diiniha baynaha wa bayna rabbiha wa baynaha wa bayna xarinaha serigne mo Anta Sali serigne bashir dafa wax ne soxna jaara saaliha la woon ku sellon la ku set wicc koo xam ne biiram ak bitteem ñoo yam waaye ku fegu la woon ku sàmm la woon nitu diine la woon ku jébbaloon yàlla boroomam léppam la ku taxaw ci warte fi diineem yëpp la ci digganteem ak boroomam waaye digganteem ak ko sëñ Mbakke Moor mi ko yàlla boole loolu kañ ko tuddee di soxna Mariama di wéjur yonent yàlla Isaa moom mooy réincarnation maam jaare bu su mii di soxna Mariama moom it ba tey ñu nuroo woon ak sàmm ak yiw ak mbaax xam ngeen soxna Mariyaama mu njëkk male kéemaan la def gu rëy goo xam ne ci moom la ko yàlla jaarale indi yonent yàlla Isaa waaye soxna Mariyaama mii kéemaan la def indil nu Sëriñ Tuubaa mi nga xam ni kenn xamut lu mu doon ku la wax xam ne li mu doon rek mu ngi wax teg ko ci xelum boppam waaye sëriñ bi moom ñëpp la jaaxal kenn xamut lu mu doon kon ki ko indi amut moroom di soxna Mariyaama Buso di am 14 ans peeg na ko moom lu mu war lu góor war a xam ba ñu fal ko imaam mbaab xaadi muy atte soxna jaara xam na ko balaa am 14 ans kon jigéeni jullit fa mu daan taxaw fa mu war a taxaw Soxna Jaara yegg si woon na fa te majeur régul bu dee ci ay at lañ topp parce que 14 ans la am. rasulallah di ko rekk mu mel ni kii maam mu rangu koy nga neel ndaw mboolool mu teel a am nga ndam te yaa gore maam soxna jaar sunu mam ya yor borom nga neel yu te feeñul jafe nga ci jaam masula jog di setani, ba mu jog di waxtani masula wax ba mo moo toroxal saytaane soxna jaar ban géej mambulaan mu naa walwal déggatoo fi kenn ku maar mbaa ku gantu bay bañawaal wande wal wi dem na fu ne ngeen gi ceebo day gën a leew ñi gantu du teey mam jaara fepp lay darale ñi nangook ñi gàntu du tee mam bamba ñépp lay dimbali